ñeent fukk ak juróom njiit ya ak rut mbokki déglukat yi asalaamaaleykum nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ji wér ak moom ba faw am na nu mbégte ci li mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu gisoon nañu ni Yosuwe jawriñu Musa dugale woon bànni Israël ci réewum Kanaan jàngoon nañu ni yàlla doon doxe ci kanamu Yosuwe ak bànni Israël daq seeni noon ci seen kanam ba tàbbal leen ci réewum kanaan mu neex mi ni mu ko dige woon seen maam Ibrahima bu yàgg tey jii nag danu fas yéene gëstu ci ñaari téere yu sell yi topp ci téere Yosuwe ñooy téereb njiit ya ak téereb Rut ñaari téere yooyo nuy won li xewoon ci diggante jamono yonent yàlla Yosuwe ak jamono yonent yàlla Daawuda bala nuy dugg ci téere njiit ya bëgg nanu jàng wax yi yosuwe dénkoon bànni israel laata muy dee ci saar wi mujj ci téereb yosuwe gis nanu ci ni yosuwe dajale woon njiiti bànni israel yépp ngir artu leen te xiir leen ñu sopp te déggal aji sax ji seen yàlla moom mi leen goreeloon ca misira may leen réew mu neex mi ñu dëkk léegi déglu leen wax yi bokkoon ci wax yosuwe yu mujj ya mu ne leen te su ngeen gisee ni jaamu aj sax ji neexul tànn leen tey jii kan ngeen bëgg a jaamu yàlla ya seeni maam daan jaamu ca wàllu dex ga walla yàlla yi waa dëkk bi ngeen dëkk tey man ak sama njaboot aji sax ji lanuy jaamu noonu mbooloom bànni israel tontu yosuwe naan waaw nun tamit dinanu jaamu aji sax ji te moom rekk lanuy jaamu ndaxte mooy sunu yàlla waaye nanu seet di xewoon ci dëgg-dëgg nu ngi jàng ci téereb njiit ya sar ñaar mbind mi nee na noonu mbooloo ma jaamu aj sax ji diirub dunduk yosuwe gépp ak diirub dunduk mag ñe mujj yosuwe te gis jëf yépp yu mag yi aj sax ji defal israel jaamub aji sax ji yosuwe faatu na ci téeméeri atam ak fukk bi mu ko defee ñu suul ko ca tundu efraim noonu xeet woowu wépp fekk seeni maam ba noppi weneen xeet jóg waaye xamul aji sax ji te xamul it li mu defal israel bani israel di def lépp lu ñaaw fi kanam aji sax ji tey jaamu baal noonu ñu bàyyi aji sax ji di seen yàllay maam ji leen génne woon réew misra ba noppi ñu dem ci yeneeni yàlla ca yàllay mbooloo yi leen wër di leen sujjotal te mooy aji sax ji ñu bàyyi aji sax ji tey jaamu xërëm yi misaal baal noonu gis nanu ni bani israel fàtte woon aji sax ji seen yàlla te dëddu ko tàmbale topp dina xeet yi leen wër waaye xeet yooyu xamuñu woon yàlla aji dëggu ji te amuñu woon kàddoom looloo taxoon baal lañu doon jaamu baal mooy xërëm bi waa kanaan di jiiñ ne mooy yàlla dañu defaroon ay nataal yuy misaal baal di leen jaamu ñu doon màggal baal dañu yaakaaroon ne yàlla lañu doon jaamu waaye ci lu wér seytaane dong lañu doon jaamu waaye xamuñu ko ndaxte seytaane nax na leen te seytaane naxoon na it ñu bare ci bànni israel ba tax ñu tëddu yàlla aji sax ji tàmbali jaamu baal ni xeet yi leen wër noonu gis nanu ne lu ëpp ci bànni israel dëddoo woon yoon wi yàlla tëral mu yoonu saraxu mala ci rendikaay ñu topp nag yoon wudul dëgg maanaam yoonu diinay baal moona ndigal li jëkk ci fukki ndigal yi yàlla waxoon muusa ca tund sinaayi wa dafa ne bul am yeneen yàlla ndare man ndax te yàlla ju fiir laa di topp tooñuk maam yi ciy sët ba ciy sëtaat suñu ma bañee waaye damay wone sama cofeel ci ay junniy junniy jamono suñu ma bëggee tey sàmm samay ndigal waaye lu ëpp ci bànni Israël faalewuñu woon yàlla aji sax ji ba tax waroon na leen a mbugal nanu wey ci saar ñaar ci téereb njiit ya mbind mi nee na bànni di def lépp lu ñaaw fi kanamu aji sax ji tey jaamu xërëm yi misaal bal bi mu ko defee merum aji sax ji fuur dal ci kaw israel te mu tàbbal leen ci loxo lëlkat yi ñu lël leen mu bërgal leen ci loxoy noon yi leen wër te mënatuñoo jànkonteeg seeni noon fépp fu ñu génn di xare aji sax ji gàll leen loxo di leen noot ni ko aji sax ji waxe woon ni mu leen ko giñale noonu ñu nekk ci toskare ju rëy noonu la téréb njiit ya nettale ni bànni israel dëgëre woon bopp lool bay dëddu yàlla aji sax ji ay yoon yoon looloo taxoon yàlla tàbbal leen ci seen loxoy noon ay yooni yoon ngir mbugal leen ngir ñu nangu seeni baakaar te réccu saa su bàyyi ne israel réccuwaan yàlla feeñal leen ay njiit ngir ñu xetali leen ci seeni noon bëggoon nañu waxtaan ak yéen ci mbirum jàmbaar yooyu ni sedeyon barak samson ak ñoom seen waaye jot gi dunu ko may wante mën ngeen leen jàngal seen bopp ci téereb njiit ya ci tënk téereb njiit ya daf nuy won ne yoon wu bànni israel mooye yàlla yàlla mbugal na leen ngir ñu tuub seeni baakaar te wëlbatiku ci moom bu ñu réccoo nag yàlla indi leen ay njiit yu leen xettali ci seeni noon loolu mooy nettalib téereb njiit ya ci lu gàtt waaw ci lu leer bànni israel moyoon na yàlla ay yooni yooni yoon waaye ndax seen ñàkk kóllëre mënoon na fanq kóllëreg yàlla mukk ci lu wér yàlla mbugal na képp ku doon bàkkaar teewul toppatoo woon na xeetu israel ndaxte yàlla mënul woon a fàtte mu digoon ibrahima bu yàgg bi mu ko naan xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci saw askan yàlla fasoon na yéene def ak askanu ibrahima xeet wi naroon a indi ci kaw suuf musalkatu àddina si te dara mënul woona a fanq yéene ju rafet ji yàlla amoon du bàkkaari bànni israel du firawna du waa misra du waa kanam du diine ju dul dëgg mel ni jubaal du sax seytaane moom ci boppam daara dara mënul woon a fànq pexem yàlla ngir wàcce musalkatu àddina si jaare la ko ci xeetu israel léegi fokk nu jëm kanam te seet téere bu gàtt bi topp ci téereb njiit ya muy téereb ruut nettalib téere bii nettali bu neex lool dafa mel ni tóor-tóor bu rafet bu sax ci kaw sën bu xasaw ndaxte day nettali mbirum jenn jigéen ju bëggoon yàlla ci biir jamono ju yàqu téere rëb mënunu leen a jàngal téere rut bépp tey waaye dinanu leen ko tënkal li ngeen war a jëkk xam mooy rut jigéen ju jëkkëram faatu la woon te bokkul ci xeetu israel ci waa moab la bokkoon te dëkk ci réew moab mi féete ci bëj saalumu réewum israel te it war ngeen xam ne waa moab ay xërëmkat lañu woon te xeeb yàlla israel ak gaayi israel ñoom ci seen bopp jigéen jooju tudd rut nag ci waa moab googu la bokkoon waaye loolu taxul woon rut bañ yàllay israel déedéet rut moom gëmoon na yàllay israel ak xolom bépp sax déggoon na ni yàlla aji sax ji defewoon woon kéemaan yu yéeme ba goreel mbooloom israel ci loxoy waa misra te it rut déggoon na wax yu wóor yi yonent yàlla musa bindoon ci tawret ci mbirum yoonu mucc wi yàlla tëral rut gëmoon na aji sax ji ak xolam bépp te nangu kàddu gi mu wàcce woon ci bànni israel léegi nag li nu wara gis ci mbirum rut mooy lii mu ngi dëkkoon ci moab ci biir xërëmkat yi waa juri rut ay xërëmkat lañu woon te rut moom ci seen diine la juddoo woon waaye léegi rut gëmatul woon diiney baayam yàllay israel la rut gëmoon noonu gis nanu ne rut waroon na tànn li mu waroon a def te yombul woon ndax rut dafa waroona toog ci këru baayam ba sëy ak góor gu gëmul yàllay israel nar ko ci fekk wala dafa waroon a dëddu këru baayam dem ca israel loolu mooy li rut waroon a tànn te mu jafe lool bala nuy seet wan yoon la rut tànnoon war ngeen xam it ne rut amoon na peccorgo bu tudd orpa ni rut orpa moom itam xamoon na lu bari ci mbirum yàllay israel noonu peccor gopp rut itam waroon na tànn diggante wey ci diiney baayam ak topp yàlla aji sax ji léegi nanu seet yan yoon la rut ak orpa tànnoon orpa moom tànnoon na yoon wu gën a yomb maanaam toog ci këru baayam sëy ak góor gu bokk ci diiney baayam waaye rut moom tànnoon na génn këru baayam dem toxu ca réewum israel ndaxte rut xamoon na ne kenn mënula jaamoondoo ñaari yàlla mënula boole jaamu yàlla yi israel ak jaamu xërëmi mowab looloo taxoon rut dëddu diinay baayam rut yaakaaroon na ne déggal yàlla moo gën déggal nit noonu mbind bi day nettali ni rut bàyyee këru baayam toxu ji réewum israel ci benn dëkk bu ndaw bu tudd betleyem ni ko yàlla dogale dafa amoon génn góor gu dëkkoon betleyem góor goo ngi tuddoon boas boas mooy doomu raxab ma rëccoon ca musiba ma daloon ci dëkku yeriko ni nu ko gise woon ci sunu njàng mi weesu boas nit ku jub woon te fonkoon lool kàddug yàlla te it amoon na alal ak ay tooli dugub yu bare waaye amagul woon jabar noonu mbind mi day nettali ni rut mi dëkk léegi ca betlehem tàmme woon xëy bés bu nekk dem ci tool yi ngir for dugub ji góobkat yi doon waddal rut baadoola la woon te ci kaw yoon wi yàlla dénk muusa ngir bànni israel noonu la baadoola yi daan fore ngir bañ a xiif naka noonu mbind mi daf nuy nettali ni yàlla jiite woon rut ngir mu fori ci toolu bowaas doomu raxab am bés bowaas seen rut muy for ci toolam bowaas dem di waxtaan ak moom bowaas ràññee bu gaaw ne ci lu wóor rut mii kat jigéen ju rafet lool la ci jëmm ak ci jikko bowaas mi nekkoon nit ku jub gis ne rut jigéen ju jubla te fonk kàddug aji sax ji ndax mën ngeen a tàndale wax li xewoon jafewul a xam waaw bowaas ak rut soppante woon nañu lool ba tax ñu sëy te noonu mbind mi nee na bowaas am ak rut doom ju góor ju tudd obed te bi obed màggee mu jur doom ju tudd yese te yese moomu mooy bàyyi yonent yàlla daawuda mi doon buur bu mag ci xeetu israel di yonent bi bind lu bare ci sa boor te ci daawuda la ramukat bi soqi maanaam musalkatu àddina bi yonent yàlla yépp doon yëgle noonu gis nanu tey ni yàlla jëfe woon ci tundu rut di jigéen ju bokkul woon ci xeetu israel bi bànni israel dëddoo aji sax ji seen yàlla ngir topp diinay xeet yi leen wër rut moom dëddu woon na diinay baayam ngir topp yàllay israel noonu gisoon nanu ni yàlla jiite rut ba ci dëkku betlehem ca israel def ko seetub bowaas di maamu daawuda buuru israel mën nanu gis ci loolu lépp ni yàlla doon jëme kanam pexem ngir indi ramukat bi ci àddina si ndaxte ci askanu daawuda ak dëkku betlehem la musalkatu àddina si waroon a juddoo kon nag mbokki déglukat yi loolu mooy sunu njàngum tey jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi di ñëw nag ndegam neex na yàlla dinanu dugg ci téere bi nettali dundu yonent yàlla daawuda mi dëkk betlehem te soqi ko ci rut ak bowaas su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yonent yàlla yosuwe waxoon bànne Israël laata muy dee bi mu naan tànn leen tey ji kan ngeen bëgg a jaamu man ak sama njaboot aji sax la lanuy jaamu